dal leen ak jàmm mbokk internet yu seen njariñ tv jub jubal jubanti lool nag la autorité yu bees yi nga xam ne ñoo bokkee ci gouvernement bile di gouvernement bu Bassirou Diomaye jaxaar fay te Ousmane Sonko jiite boobu lépp gouvernement nekk premier ministre ba la ñuy woote nag ñu ngi ci yooyu le tànk ca port autonome bu Dakar lu bees moo fa feeñ ginnaaw nag ab tabaxub siège social kii di directeur bu bees bi di Waly Diouf Bodian moom nag mu ngi ci redressement di wàllug jubbanti boobu lépp mbir nag mu ngi soxal tabaxub benn immeuble bu doon service siège social fi nga xam ne port autonome bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga détail Dakar information judiciaire ci décaissement 6 milliards 490 millions de francs CFA foofee nag ca pad du port autonome de Dakar sûreté urbaine vous recherchez bu Dakar Nous avons xam chargé wu enquête bilé et daal dina ci déglu ay responsable yu bari yu port autonome bu Dakar Yo avons nak dañ ci transactions ci transaction bobu ñu déclencher ci gestion Abou Aboubacar Sadiq Beye ngir mu am siège social bu port conclure ci atum 2021 ak entrepreneur convention bo xamné la ka taxone rek sous conditions suspensive jëm ci ay peine ak soins euh, terrain buy dépendre ci domaine portuaire Dal terrain va xamné port autonome de Dakar ñoom ñoo ko wala ñu ci ci Dakar ci ak euh, weccante euh, nag jëm ci yooyu les liggéey ñu sukkandikoo ci euh, kàdduk entrepreneur boobule dafa waroon a recevoir ci port autonome bu Dakar benn montant bu six milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions de francs CFA yoo xam ne dako ko war a fay ci ñaari xaaj ci xibaar yi ba tey ñu ne nag jot na ci trois milliards deux cent quarante-cinq millions. ci ginnaaw bu ñu defee ab xaatim di signature de convention bi jëm ci avenant 5 décembre 2022 la daal di amoon ñoom pour autonome de Dakar ak entrepreneur bi daal di koy xaatim ngir organiser paiement bu reliquat boobule ci boobu lépp ñëpp nee nañ nag ci boobu lépp contexte port de Dakar ci seeni i kàddu ngir daal di la li nga xam ne moom mooy jeexalu ko liggéey bi ngir tabax immeuble boobule. moom nag daal di euh, euh, traite bancaire wala sax lettre de change lu milliards deux millions entrepreneur bi nga livrer immeuble bi soit 5 avril 2023 bu ñu sukkandikoo euh, ci xibaar yi le wante wax ak kenn livré wu ko wante nag port moom acquitté wu na ci obligation contractuelle yëpp loolee nag mu ngi am ndax plaignant bi ñoom si constitutif bu détournement de deniers publics sax la ñuy wax bu ñu sukkandikoo ci entrepreneur bi nee na montant yooyu ñu que nag dafa servir ñu daal di fay ay prestations fay dédouanement ak pose matériel ci euh, li nga xam ne moom moo war a servir jeexal batiment boobu nga xam ne dafa nekk en chantier fik fàttali nag Mountaga Sy nekkoon directeur général bu mujj ci réñu Macky Sall moom porté woon na plante jëm ci affaire boobu wante ba tey ñuy wax ak yéen loole aboutirul mu mel ni nag dafa bokk ci document yi nga xam ne Macky Sall da cee tegoon concam